Amadou Maam Seydi sama moo di xajal fii si ma meel yi may ñu xéewal si biir da nga may def si ñoom si kaw salaama saguy naa sa xarit ndax lay naay

waaw sourire sourire sourire bi dañuy daal sourire. yaa ngi xool bi. bay Abdoulaye Diaw sanga seene maam bay waay yaay ramu jam yaay ramu ah, jam presque way koy wàcc suuf la jëm ah, la jëm seen loxo yi ca kaw ak kaw yaa muy wàcc waaw na wàcc maa ngi appel 2023 nga nekk ci sa quatrième sañ def sa verre noo ko dundee ki tax ngay tax doo santul rek doo nekk nit quoi te ñun lu ñu mel rek seen laay waaye lu ñuy sant rek dañ koy sant doomam ji nga xamante ne mooy maam Seydou mu sëriñ di taawam bu góor na ci biir yaatalal ñu ba ñëpp mën a ñëw fu waaye jóge rek mu ubbi ay saalam gis ngeen fii nu mel kaw bu suuf te lépp moom ndax nag sa bàyyi génn àdduna 14 ans mën a maintenir kër gu mel nii jàmbaar kon ku sant moom lañuy sant moom la ñuy gërëm mais nag ku ku mënumaa gërëm kenn du ma gërëm samay ñaari waajur sama papa ak sama yaay parce que doolee jën ndax la quoi ak sama famille samay frère ñëpp ñoo taxaw fii di ma jàppale suba ba guddi te lépp ci cant la bokk ak sant yàlla ndax ñun ki ñu yaakaar doyloo ko civisme lañu lañu lañu la ñu jàngal sañ sa la ñu jàngal waaye itam jàngal nañu suñu comportement ak doomu aadama yi ba chaque jour ñu mën a nekk ci jàmm di nekk ci benn lancé boo xamante ne kuñ ci fekk rek doo ñu xëccaat nañu kaay. te am na ci loo xamante ne bii dama koy faral di wax nit soo ko bëggee doo ko teg na ko te nit ñi bu ñu ñëwee parce que kër gu ne am na nu muy doxee kër kilifa dafa am nu muy doxee ngénte ak dëj bu benn ku ne wax nga xam comportement bi ngay indi. nga teg ko nga xam ne lii kat fii la ñëw lii fee la war a dem et que nit yi mën nga loué chaise mën nga loué bâche mais nit yi kenn mënu leen a loué tamit nga nga xewle appel bi man yaa aw moom ko appel si dinaa li maam la ku wuy si rek sa bopp bi nga wuy ndax ba mu wootee woow ma man woowul kenn ñëpp la woo kon ku ci ñëw aussi war ngaa am comportement yoo xamante ne bii comme ni ñu koy waxee yu normal la yu si te yaakaar naa ne lool ngeen fi fekk te loolu moo fi am vraiment nit ci solu sol nekk nekk sa jàmm et que may gërëm aussi pour presse en ligne bi parce que c'est pas évident que vous venez depuis ce matin ngeen ñëw pour juste couvrir événement bi xool li fi xew mais man comme li may wax chaque rek dama koy waxaat quoi parce que ñun ñëpp famille la micro bu ñu ko tiimalee ñuy wax lu ci nekk si ñun dafay dafay dafay jox moroomam avantage bu mu amul parce que YouTube buy fay fayu yaa awa presse en ligne bi lay fay kon bu ñu mayee loolu yéen tamit da ngeen ñu war a jàppale ñun en revanche parce que ñi fi yenn wax gis nañ li xew ci kër gi dara xew fi loo xamante ne wala dara loo xamante ne nit war na caa war a wax lu dul titrage bu rafet parce que des fois nga gis presse en ligne bu ñëw wax ba wax ba dugg wala wax ba filmer la nga gis ko mu titré bind lu ko neex te loolu aussi bu rafet ci deru ki nga xamante ne da nga ne sa nit la comprendre nga. Mhm. dañuy ñëw jël def leen neex mais pour bëgg jaay événement bi. wala bëgg jaay li ñu dugal faaw ñu bind leneen lu bokk ak li nit ñi def. Mhm. te dafay am solo aussi ñun bu leen di may lii yéen tamit ngeen ñu koy may parce que lii ngeen yor di ci liggéey ñun jëndalul neen ko. Mhm. waaye ñun aussi am nañ image boo xam ne dañ koy sàmm. te yéen ngeen ci war a jàppale. parce que ñu ngi fexe la tout solo ñu dara loo xamante ni nit na ci wax fexe nañ ba yiwal suñuy sol. fexe nañu ba tegu ci yoon bi nga xamante ne bii mooy yoonu sénateur Moussa Khame ci jikko ak jëf parce que ku mën a jël ay doomi aadama di leen jox ñu lekk soo ba ngoon kooku yaa ngi góorgóorlu mais nag yéen ñi ñu war a jàppale bu ñu ñëwee ci ci bés gis li fi ne nañuy wane li nga xam ne moo fi ne mooy lu baax li d'accord nañ ciy wax mu mel ni mu mel ni da ngay tontu par rapport ak titrage yi nga xam ne moo fi amoon l'année dernière parce que gis nañu li nga xam ne moo di appel bi nga woote woon fee sa kër gis nañu li mu mujjee bëri woon na coow ba Jamra dugg ci ku nekk daal di dugg mu mel ni titrage yooyu tey moo tax nga wax li ni mel si d'accord titrage yooyu daf koy waral ak yeneen ak yeneen yu fi jaar bari mhm. mais tey ci woote lañu ma mhm. euh, comme ni ñu koy waxee di euh, opportunité bu mel ni am. Mhm. mën nañ koo waxtaane mhm. parce que mooy li wax chaque jour ñun ak yéen ñun ñooy liggéey. Mhm. compte yi ñun ak yéen ñoo ci liggéey kon bu buñ ciy liggéey ku ci nekk da waroo di kenn warul faqatal sa morom en fait dañoo war di lépp di ko def à la di ko di ko tegee ni mu ni mu nekkee parce que ñun yéen ñun war nañoo déraper yéen ngeen kaa derawaat ci ci yéen ci yéen ñi ngeen di doxalee parce que loolu aussi je tenais parce que benn événement bi rek mooy am ci àdduna bi ay événement yu bari dafay ñëpp ñu fay daje mais daje bi bu ñu fay daje dafa am nu muy nu muy nu muy demee ci suñu biir ba tax ñu mën a ñemee mën koo teg ci biti et loolu laa ne woon message bi ma teniroon à cœur la pour ma wax ko pour aussi ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo dugal yenn yi wala buñ koy wax parce que da gis ku dugal photo yaa awa def ci ay jooy wala mu def ci leneen boo duggee doo fekk limu bi te waruñu foowee li nga xamante ne bi ñun moom la ñu am li ci liggéey mu nekk suñu gàñ baax d'accord euh, changement lieu bi aussi dafa mel ni c'est dû à ça moo tax ren nga daal di ñëw ba sa kër sëriñ daal di ci def appel bi waaw d'accord parce que li may wax chaque jour loo def defaat ko dafay fekk loolu yow yaa ko def mu ne ma ren damaa bëgg nga ñëw appelé sama kër kër sëriñ bi sëriñ laay kër sëriñ bi sëriñ laay kër lu nataalu sëriñ bi sëriñ laay fii ñun lu ñu am suba bu guddi ba ngoon bu ñuy tëdd sëriñ bi sëriñ laay amuñu lu ko ëpp doomam bu góor di taawam bu ma woowee ba ma ñëw yaa aw dama bëgg ngaa pere fii te eh, bu ko neexoon bu ko defaan moo na ma jàllax ci biti su boobaa ma tàntaat ma ko tàntoon te léegi daan mën maa koy aaju moom coow mas ta am ba mu daw bàyyi ma man da koy da koy surmonter taxaw dund ko ak man moom sa sëriñ moom sama sëriñ d'accord ñii taxaw xam nañ li may wax mais coowal daaw bi nan nga ko dundee parce que coow li réyoon na trop benn nit moom moo ma woo dama génnal nga wax ñi moom d'accord mu ne ma jéggalu laayee comme nee nañ danga na toog ndax yéen ñi fa nekkoon gis ngeen li fa xew te yaakaar naa ne bu ne cantaaku ci dara xala bi moom kon bu ñu indee ay xiif pour lii ko peut-être nañ ko defee moo dul yoon bàyyi loolu te nekk ci la nekk mais ci leneen nekk yaakaar naa ne ci loolu la ñu nekk ci la ñuy nekk et si di ci nekk ndax mooy appel Seydina Limaamu lépp lu koy gàkkal man ma di Ablaye ma ci dox ma ci wax te ku bëgg a gàkkal tamit man ma ko nangu parce que aussi dara xew ku ne di pëttaxlu fii yaakaar naa ne lu ñu pëttaxlu amul ndax ku fi nekk yaa ngi appel sa kër ñu ak sa façon ñun yaakaar naa ne ñëw ngeen ci gën gis ngeen saa ku ne da ngaa solu toog kolu parce que rek may wax sax invité dama la booy ñëw indil kol mhm. ndax kër si dif lañ koy def lépp rek bu topp charte bi ba mu leer kon ñu bañ a am benn déraillement bañ a am lenn loo xam ne d'accord appelu ren bi gis nañu suba ba léegi ñu ko commencé ci màggal bi yaa ngi bernde waaye tamit yaa ngi solu comme ni nga koy defee saa su nekk li des ci journée bi nan nga ko fas yéene waajale dinañ wàcc moom ni gis ñu paree dam yàlla yi reer ba suuf fu nañu yeewu leen dem incha allah ñu gis aussi sa délégation maanaam say invitation say nitu bopp say am di jàmm ñëpp daal dina ñëw teew ca kaw ñu nga ko xam ne nag moom moo sa appel spécial waaw dégg nga ma la wax ñun mbëri mi ñu àndal kenn du ànd ak moom di arrière hmm. ki ñu àndal ñu wallaahi bu doon ne daaw 5 millions laa def ren am naa 10 millions mbaalu ko ndax lu ma gëm la lu ne ci man man lu ma waaye di jaay ci àdduna bi dul bàyyi laay bugguma parce que loolu laa gëm ci laa judd bu ma nee naa man bu ma judd bàyyi laay fay damaa dem ba xool ko si naa ne moom ma bëgg ko gëm te ku may bëgg ci loolu nga may bëgg ku may bàyyi ci loolu nga may bàyyi waaye ku may jàpp ci loolu nga may jàpp kaw ba suuf kër gi dafa fees dell ñëpp ñëw wuyu see loolu kenn moo ñu ko may te kenn lañ koy sant tey ak suba monsieur le ministre moom kese kem dong amul leneen. Euh, yaawa kuy bëgg ci loolu nga bëgg. ku ni ku ni ku ni sànn tamit nga sànn ci loolu waaye moo dee suñu xol moo ne suñu fépp yaaw est-ce que duñu nangu ne daaw dëgg la euh, njuumte am na euh, mooy que internet yi euh, site internet yi dugal na ñu war woon dugal waaye kenn xamul ax lu laa yéen ak dëgg ax lu laa yéen mais man li ma wax léegi dafa leer dama ne ñi ñëwoon ci appel ay cantaakul lañu man yaa awoo ma xam-xam ne lu diine xewle damay dem damay dem Touba damay dem Tivaouane damay dem fépp ñoom bi ñuy dañ ne dañuy ñëw ziar si yaa awa parce que yaa awa day suñu mbokk la te day ñëw di ñu fekk si ba ñëwee indi seen i xarit mënuma leen woon arrêté comprendre nga ñoom ñoo ñëw ñu tëgg nit ñi nekk fa di sigar te ay baat yàlla lañ doon ko xam nga à part ça mu woon leneen peut-être ñoo ko interprété neneen di ñaanal ñëpp jàmm di sant ñëpp di ñaanal ñëpp. yaa ngi ko naan koy tàggatoo sa diggante ak ki nga xamante ne moom moo di sa yaakaar nekk Chérif Ousseynou Thiaw Laye euh, mu daal di fi génn àdduna ki nga xamante ne moom moo di ab taawam 14 ans bàyyi jëndoo tey nekk 143e édition ñuy màggal ki nga xamante ne moom moo di le Mahdiou euh, sa relation ak ki nga xamante ne moom moo di sang bi nga xamante ne moom ba tey nga di ko toppal doon la la sëriñ bi ñëw di def. waaw mooy li ne ñu nekkee ay xale di di jàngi di wàcc tënkee laa daan jógee chaque àjjuma rek ñu gis ko gis ko uniquement que ku ma bëgg la man te fu ma nekk rek day nekk ak man loolu lu may wax ci ay caméra lu may dund yëpp yàlla nekk ci man la xam naa moom fi ma féete te bu man bu yaakaaroon naa ne bu mbëggeel boobu nekkoon dëgg tey yàlla du ma boole ak njabootam ma ñuy dem leen di ñëw ma si maag taawam bu góor bi nekk matin bi du soir nëbbu ma dara gis ngeen ma ne man ne ku la jox cër man ta weesu mu ubbi këram ëpp ay saalam ne yaa awa ñëwal ak say mbooloo nga ñëw ci ñu appel loolu doy na loolu doy na relation d'accord loolu kese la merci beaucoup ñu ngi lay